mbokk internautes yi dal leen ak jàmm ci suñu émission l'invité tey nag ñu am mbégte ak contentement di ci ànd ak le secrétaire municipal bu mairie anne bel muy monsieur Issa Gueye ngir waxtaan ak moom tolluwaayu yaraax ñeel travaux yu terrain mobile oto yi garé ci pegg tali bi ak lii di projet des travaux d'assainissement et de restructuration urbaine lu ko dalee yaraax ba mbaaw loolu yépp mu wax ci andi ay leeral. waaw maa ngi leen di gërëm yéen waa Hann TV euh, ci intérêt bi ngeen am pour euh, commune de Bel-Air par rapport ak euh, stade municipal bi li ma ci bëgg wax il y a aucun problème on a suivi toute la procédure du début à la fin ñun moomuñu suñu bopp yorewuñu chèque yi rek bëgg benn affaire rek signé chèque def ko non doxewul noonu dafa am lu ñuy wax procédure de marché public surtout quand marché bi dafa dépassé 300 millions bu boobaa étape bu ne da koy yóbbu au niveau de la direction centrale des marchés publics ñu xool ko nga doog a dem ci beneen étape même dossier d'appel d'offres d' offre soo ko xoolee ba pare ngay lancé dang koy yóbbu direction centrale des marchés publics ñu xool dossier bi ne baax na nga doog a lancé soo dépouillé da ngay jël PV de dépouillement ak rapport d' analyse yónnee leen ñu xool ba pare nga doog a dem étape donc étape bu ci ne ñoom direction centrale des marchés publics dañ koy vérifier dans le cas d' Nous amone ñaari ñaari offre offre société buñ wax CSTP ak offre ben groupement buñ wax Venturelli euh, euh, Probatis bañu dépouillé ki nga xamné Probatis proposé 484 millions euh, CSTP proposé plus de 100 millions de plus c'est-à-dire 590 euh, euh, millions de trucs comme ça Hein, je n'ai pas les chiffres en tête comme ça parce que vous, êtes. Voilà. Donc, non, nous le Alors, bon, évidemment, euh, bi ñu commission bi attribué marché mon man comme ci mais commission bi attribué marché bi groupement blé oui ventureli Probatis Lolo ba Nous a ñu envoyé rapport d'analyse avec bi euh, PV de dépouillement bi te ou à koy dépouiller waa trésor dañuy fait voilà cette perception municipale donc nous avons envoyé ko DCMP DSMP a fait une réflexion la réflexion c'était quoi article 52 bi dafa wax comme bi groupement bi dafa un étranger nous nous ko ko jox parce que article 52 dafa devenait. dafa ne dafa ne dafa alors oui ñun ñu ne DCMP kat li wax nii wax c'est vrai que article 52 alinéa bi ci au wax na souffre ci suuf am

loolu dafa voir l'air aussi ñu saisir rmp le comité de règlement des différences statué daal di génne décision ba ñu décision mooy lan nañu parce que ñële la ñu waxoon DSMP la ñu waxoon ko toppoon mooy marché bi CSTP à dañuy euh, rapport d'analyse bi évaluation bi jox jox après dañ ko euh, CSTP ñu ne non bi ñu kon je reviens RMP bi mu xoolee affaire yi nee nañu dañu reprendre affaire yi te bi pas may nañ ñu ñu ubbi ko à des entreprises à des groupements yoo xam ne entreprise sénégalaise ak entreprise étrangère kon kay kooku ñun la RMP jox dëgg bien que dégg naa sax quelque part benn journal la place boo xam ne on sait que bon c'était un article commandé ça on le sait RMP sabre Pape Mbengue alors que nous, avons saisir l'ARMP que nous la ARMP wax jox la après nga euh li ARMP wax alors ba nous avons ñu lancé waat marché pour nous dire rek le marché bi tardé du ci ñun lancé waat marché comme nous le ko mais en procédure d'urgence 10 jours bañ defee attribué encore au groupement Probatis Venturelli alors cette fois-ci nag CSTP daal di saisir ARMP moom it te ARMP bu ñu ko saisiree day suspendre lépp da ngay taxu xaar ba ARMP décidé ARMP la mu décidé mooy nee na ko ñun commune de Hann Bel-Air jalgatiwul benn yoon procédure bi lépp dafa tegu ci yoon loolu la loolu la ARMP wax te nee na ko yow ta demande là elle est irrecevable te la nga fa joxe sax comme caution duñ la ko delloo waaw loolu kan la ñu war a gërëm. <laughs>

service des impôts ñu enregistré nga joxe ordre de service pour que ñi wara commencer commencer ensuite da nga wara joxe avance de démarrage muy 20 pour cent marché bi wax donc le lañ doon xaar loolu rek mo tandel mais du ci ñun donc c'est les procédures de marché qui sont souvent assez lourdes xool aujourd'hui un problème bi ma procédure de marché la lo ci exactement mais y bu ngeen démé stade ba gis ngeen dañeen ñaan ngay liggéey loolu rek mo ci amoon solo ñu liggéey liggéey boo xam ne ensuite liggéey bi da nga gis ne dañu redresser waat affaire yi teg ko ci noonu teg ko ci ay normes nara nag am gazon gazon synthétique bu dëppoo ak jamono donc loolu rek la donc stade bi daal vraiment man je ne vois pas de problème ay procédure de marché la woon ñu respecté ko ah man nag technicien la man du ma dugg ci yooyu man du ma dugg ci ay kañ la ñuy mën a am stade bi en tout cas daal liggéey bi gis ngeen ne commencé na dañuy ñaan yàlla liggéey bi jeex ci jàmm ak salaam li am solo daal mooy na liggéey bi tegu ci yoon baax dugg commune bi c'est la première fois au Sénégal une commune di financer gazon synthétique à ce à ce niveau là 484 millions loo fi gis c'est état moo ko def ñu takk suñu digg deux ans def loolu waaw ah, loolu am solo c'est la première fois te contrairement à ce que les gens disent fi xaalis ce n'est pas vrai loolu aussi amul mais question de volonté la bëgg suñu jeunes yi di di di di di dem Pikine di dem Ibamar

football mu tëkkoo parce que dañ ko nar privatiser wala bok ay ay ay plage lañ la fay may ñu ne non non non duñ ko def li ñu bëgg ñun mooy ñu defaral ko suñ bopp ba nga xam ne doomu doomu Hann bel du ko jafe donc lii rek mooy affaire affaire stade bi mais vraiment amul benn problème particulier nit ñi nag wax nañu seen i c'est normal ki xamul moom mun nay wax ñenn ñi aussi ñeme nañ yàlla lool nag te te doy na waar pour la restructuration là vraiment <laughs> restructuration moom ku ci bëgg am information restructuration bi ki koy piloté muy la FDV fondation droit à la ville te dañu am chef de projet bu tudd Silman Sy c'est un ingénieur chaque semaine il y a une réunion ici ci site bi donc ku ci ku dem ci chef de projet bi nga xam ne moom lu mu la ci waxul keneen mënu ko ci wax di nga am information yi nga bëgg yëpp mais problème bu ci am la mairie n'a aucune responsabilité ci problème yoy nañ ko wax bu mu leer nañ chantier bi livré guñu ko parce que bu ko livré nak ñun ñu mëna xol lan lañuy doxal ci li wala lan lañuy doxal ci lé bon mais problème assainissement la mairie n'est pas compétente FH moi liggéey liggéey bobo te même bu doon pare na sax assainissement ku xam na mairie li jëndiw ko am na seen Sénégal ben, société moo fi nationale bu tudd ONAS moom mooy top, loolu mais daal bés bu ñu ko livré nag tout ce qui éclat tout ce qui yeneen yëpp occupation voie publique beeg yu non, coco dit dinañ ci taxaw mais niñ ci war a taxawee ñun taxawee nañ ci parce que ñun ñu ngi réunion ak waa FDV te bu leen fàttee décret de sauvegarde bi 2011 na Abdoulaye Wade ko signé kan mo ci taxawoon bu mu am le maire Babacar Mbengue dañoo def fi délibération fii ensuite la ville def délibération le la commission régionale de l'urbanisme man ma maa nga fa woon jour boobu réunion bi ñu dem fa ensuite le maire Babacar Mbengue ànd ak maire Khalifa Sall ñu dem seeti Ablaye Wade waxtaan ak moom parce que terrain boobu dafa am ku ko moom ba ci la ñu bindee eh, décret bobu nga xamné moy sauvegarder terrain bi ñu jël ko ci koku mun ko jox dëkk bi chance bi bi bi bi bi bi bi am fii feneen dañuy def restructuration jël nit ñi yóbbu leen fa sori fi ñëpp ci dëkk bi lañ dess ñi nekkoon en trois yoy ñu yóbbu leen foofu n'est-ce pas nga xamné gennuñu commune bi et ça c'est important té lu ci bëri boo xolé ñom fañ leen yobbu mo gën fañ nekkoon en tout cas terrain bi Eiffage ñim mu ko defaree macha allah maintenant nak xam nga nak lu bees du ñàkk moom ay ay tolof tolof yu ndaw mais dal yëpp ñu ngi ciy fayee. Euh, la mairie mom lu ci né dina ci am information dina xam aussi naka la ci doxee par exemple électricité bi ñu ngi ci parce que ñun am nañ ci cër amna na buñ ci wara a ñu koy dox mais dal nañ xamné ñun ñu ngi réunion ak wa wa euh, FDV le chef de projet tous les lundis dañ daan réunion ci bureau maire fi légui ñu ngi réunion ba mu ngay amé ci ci site ba au moment où on fait l'enregistrement là ñom ñu ngay réunion foofu donc euh, y a pas de souci pour ça alors auto yi di gaare ci talib di garé n'importe où lan moko andi lu ci upp garage mécanicien particulièrement té loolu dafa jaaduwul xam nga boo nee yow man doomu dëkk bi la mais da ngay défar dëkk bi mais garé fu ne démb rek ben accident amna fi bo boo liko waral moy yoyu les gens se garent n'importe où n'importe comment ko ci sabu mu ne da nga singali on a eu un problème comme ça n'est-ce pas hier ñu singali wuñu kenn mais dafa am lo xam dafa jaaduwul gérer loolu situation bobu

mais ñun mënuñu jël suñuy agent di leen ñàkkal fay duñ ko nangu duñ ko nangu yuuxuñu ci biti defuñu ni ñenn ñi di def defuñu conférence de presse mais fi ñu ko war a régler loolu danañ ko fa régler hein. mais daal loolu la mais comprenez que dafa am ensuite talib yi ngeen di gis nii du communal communale c'est une voie classée te les gens l'oublient Ageroute l'État daf ci am cër à travers l'Ageroute en principe même ko ci waroon autoriser mu tek len da nga wara am d' akuru accord aujourd'hui nawet bu joté dana taw temps ni ñu mairie bi non non ñun amuñ ci ben waruñ ci def len war buñ ko laalon sax tay ji ni wa Ageroute mën nañu andi problème da ngay gis ne ñoom danañ am ñun li ñuy def moy oo leen ñu andi camion ñu tànq ndox bi mais souvent nit ñi critiquer na ñun wala gis nga route de Rufisque ndox ma egsi na fii mairie baa ngi xoole non mairie bi xolé wul réew mi nak dañ ko organiser ku nekk ak sa cër moo la benn secret bu ndaw est-ce que xam nga route des Pères Maris voirie classée la xam naa yow xamuloo ko woon say borom yu bëri xamuñu ko route des Pères Maris voirie classée la parce que dafa am document boo xam ne mooy def ci Sénégal yëpp lan mooy voirie classé ak li ci des nag mooy voirie communal boobu on est compétent à 100 pour cent hein? donc nii rek la demee mais ñun li ñu ci war a def yëpp ñu ngi ci def di ngeen di gis suñu agents yi ils sont sur le terrain on a 30 sabots mais li ñuy li li li ñu war nit ñi war a comprendre Hann Bel-Air mënul nuroog Dieuppeul Derklé mënul nuroog Sicap

pourtant parce que neen voies voie classées pourtant vers Mbao Amna na ay ralentisseurs lu tax fii war te mën am ralentisseur non non non dis sax rien. autoriser leen ñu nous, ñun mën nañ ko réaliser sous votre supervision mais les gars, ça fait longtemps ça On a ko conseil municipal bind nañu def nañ lu ne té loolu dafa wara a am ay ralentisseurs dafa wara am fi parce que auto yi nu la neex lañu ñuy et surtout ay camions la gis ngeen ay nit ñu bari ñu fi dee fi ci loolu ah, c'est une route très accidentogène ah. <laughs> voilà merci en tout cas li kontaan naa ci hein, vraiment taxna mu peut-être que dina leral yenn yenn mbir yi mais bon ki bëggul mu leer ci bopam wala ki nga xamne mom moom leer arrangé wu ko ah lo ci mën voilà parce que man d'habitude je ne réponds pas hein damay dégg yu bari nag yi fi xam yépp maa ngi koy dégg dé yi ñi wax ci groupe yéek yenn groupe yi yi ñi wax ci yenn affaire yéek yépp maa ngi koy dégg mais man technicien laa bëgguma ci dugg parce que bo ci duggé finalement tu deviens politicien wala tu voilà xam na yooyu yëpp nu mu hein mais man bu ma waxee boo nee par exemple centre de santé bi def nañ fa lii def nañ fa lii def nañ fa lii les gens ils disent voilà waaj ñu ngi politique mais man je suis le secrétaire municipal je mène tout tous ces projets là donc xam naa lan lañ def ci centre de santé bi su ma ko waxee mais mooy ne moi je défends mais man je ne suis pas je sers une institution je ne suis pas au service d'une personne le secrétaire municipal est au service de l'institution l'institution municipale comme il fi liggéey institution mais ñun dañuy identifier fii nit nit ki ak bañ nit alors que ñun on est au service de l'institution voilà donc ça aussi il faut que les gens def le départ xam ne ñun dañuy liggéey pour la pour la population té liñuy liggéey dañ ko bëgg teg si yoon hein té luñu wax rek mën nañ ko argumenter mën nañ andi keuy yu koy firndeel waaye toog fële nak di di di di wax rek lo xamné maîtriser ko aussi dafa yomb en tout cas ma ngi leen di gërëm di leen di leen sant merci.